saraax lu nuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa bilan écurie Rock Énergie six victoires douze défaites fekk fa Bombardier Gris Bordeaux Ama Baldé Tapha Tine ak Siteu ñoom la sunu làmb dippe vingt sommets de luxe de la saison 2018 2019 bu ñu xuusandee ca journal ba nag dañ fekk écurie Rock Énergie gannaaw nekk ga Modou Lo nekk roi des arènes teewut écurie ba dafa nuux ca ndox ma ba xalam sedd ren 18 combats la ñu def maanaam fukk ak juróom-ñett juróom benn victoire képp yoon rax ca dolli 2018 2019 bii ñu génnaat loolee wone na ne écurie Rock mu ngay wàcc ci suuf la jëm wàccu écurie boobee li tax ba léegi sentiruñu ko mooy Modou Xarañ Lo moom rekk moo ci VIP bu bëre ñaari combat benn bi Balla Gaye 2 da koo ñamal ñaareel ba mu am Eumeu ñamal ko gannaaw moom roi des arènes amul beneen ténor bu fa tooyal ngembam ñoom Rock Énergie li leen gën a laal bokk na ca boycott gi leen manager yi boycotté gannaaw ba ñu maintenant moom moo fa bëre ñaari yoon daan ñaari yoon keneen ka am ñaari combat réussir ko raté finition mooy armée 2 moom bi saison bi tijjee ñaari combat la am wone njàmbaaram Aliou fat-fat la daan teg ca as gaawaan combat bu mujj ba digganteem ak soldat la ñàkk soldat yóbbu ko bàngoo la écrit ba di dem dem ca suuf am na gone yoo xam ne ñu nga cay wone seen bopp Petit moom mën a moo tax ñu dippe ko Petit xarañ la ñu xamee woon Moustapha Gueye mooy zatak zokoñ et zagañ stratégie bu mel noonee la ñu gis gisu leen ba ñu laajee Pape bi di xoole ba wàcc ci suuf la mu xamle mooy manager yi ñooñu boycotté moo tax ñu wàcc suñu saison ren bu yàqoo association des managers ñoo ko yàq ñeneen ñi seen saison doxul bokk na ca Bombardier Gris Bordeaux Ama Baldé Tapha Tine ak Siteu ñaar fukki mbër la lu sunu làmb limal ne ñoom ñëpp ané balance na mu leen tuddee sax mooy les vingt chevaux de luxe Bombardier Ama Baldé Tapha Gris Bordeaux ñoom ñëpp xaar ba sonn waaye tooyaluñu seen ngemb Sa Thiès Siteu Yékini Junior Papa ba sonn tooyaluñu seen i ngemb Forza Modou ñoom ñett ñooñu it xaar nañu ba xaddi nes Elton ñoom it léegi ñu bàyyi lam dafa mel am combat da du mooyu entraîné nañu ba sonn waaye ba léegi combat da leen di të bu dee Malick Niang ñoom ñaari xaar nañu baxaat yi yile mbër daal ku leen bëgg omatal promoteur yóbbu ca ñoom kuy wër ñu xiif combat ba egsi ci ñaar fukki mbër yi boye boo nga jàpp buñ ca combat royal ba doon dox ci diggante Eumeu Sène ak ba léegi tafaajoo ma ko tëggoon bor baa ca kawam góorgóorlu na ba fay mbër Dakar bi ñu génnee ci saison bu neex 2018 2019 mbër yi ak promoteurs yi ak tëggkat ya wàcc Adrien Senghor ba mu ba mu toj amateur yi doon ñu dëgmal Adrien dana ubbeeti ay buntoom bu ko ku nammati làmb boo fa demee sa xol dana sedd keneen ko xolam di waaj sedd mooy super jamono 2 borom feebar bu metti ba moom association mbër yi ñuy wax dekki làmb ñoom ñoo ko seeti këram yëkkati lu ci toll ci 261 500 francs jébbal solo waaye ñëw ga ñu ñëw seet si ko ëppati na solo lépp ña nekkoon ci super jamono 2 yóbbu woon xaalis ba mën nañ cee jàpp ku ci mel ni Médoune Khoule 2 ci mel ni Lassana ak Pape Diop Junior ba ci Aline Sey 2 ñoom ñépp ñu nga woon ci super jamono 2 bi association daal xaaratul kenn ci leen lépp lu ñu jàpp ne bu ñu jàllantoo démb ca stade bu mbaaw dañ fay fekk si tag press ba dañ fay fekk si waaj ga muy waaj combat ba ca états journal ba xam ne Siteu États-Unis fexe nañ ba dajale mbër dajale amateur dajale supporteru mbër yépp gaa yi xew bu dee Cité moom la mu xam ne nam ko defe woon la koy defewaat bëre daan ñibbi ñibbi si waat Sénégal journal ba rax ca bu Thiès ñoom ñu ngay waajal seen nuit de la lutte gannaaw ba ñu jëlee drapeau de l'état baak saison bu baax ba ñu def boobee CRG ñu ngay waaj ngir wàcce waat Thiès ba mu wàcc ba ñuy jeexale mooy ca Modou Lo nouveau roi des arènes Modou Lo le roc des Parcelles Allah